Euh, di wax ne li tax ñu woote tey point de presse dafa fekk ne dañoo nekk en politique te boo nekkee en politique bu situation politique bu bees amee war nga mën a woote wax ak askan bi war nga mën a woote wax ak coalition Diao 2024 woo militants yi woo camarades yi woo sympathisants yi wax ak tamit li nga xamante ne mooy opinion sénégalaise di wax ne tey ñu ngi en politique te kuy wax politique wax ne politique train buy daw la train buy daw nag saa su nekk dina am ñuy yéeg am ñuy wàcc politique train la buy daw arrêt bu mu yegg am ñu yéeg am ñu wàcc di wax ne bu ñuy wax ne politique politique lépp a ngi ci biir politique ku juban ci biir ku baaxan ci biir ku bonan ci biir politique tey jii bu ñu koy wax di fàttali histoire politique sénégalaise dañuy rappeler ne histoire politique sénégalaise l'histoire est de trahison yoo xam ne que tey jii boo xoolee ascension wu Ablaye Wade pendant 26 ans muy mën ay combat politique bëri na ñu ko waroon ci yoon bi te bi mu yeggee au pouvoir ñooñu ñoo ñëwaat bokkaat ak moom nguur gi ànd ak moom géré di rappelé ne le président Macky Sall bi mu nekkee ci yoonam nekk doomu Fatick bari na ay doomu Fatick yoo xam ne dañ ko waroon dañ koo jàppale ci combat bi wala ñu dugg ba ci biir nguuru Ablaye Wade rocciwaat leen ñu daal di wane ginnaaw dem topp Ablaye Wade bàyyi Macky Sall mais bi Macky Sall faloo dafa ubbaat ay buntam yaatal boole leen ci nguur gi mun nañ ci lim ñu bëree bëri kon tey bu ñu demee ba fii ku toll ni président El Hadji Mamadou Diawo am jaar-jaar bu mu am am carrière bu mu am am yoonam boo ko ci Benno Bokk Yaakaar ñu dem ba foo xam ne dañu faa toll maanaam li may faral di rappeler la déclaration du 3 juillet président Macky Sall ne moom jeexal na fii la yoonam yem président moom Hadji du Diawo yàgg nekk un leader un leader jeune sociable généreux ouvert yàgg ubbi ay buntam ci ndawu APR surtout jël la responsabilité sur lui-même de dire damay dem à l'élection présidentielle damay dem à l'élection présidentielle parce que am naa gis-gis bu mu bëgg indi Sénégal damay dem à l'élection présidentielle parce que Sénégal bëri na fi loo xam ne tey ji mu ngi fiy sooxe ma gisoon ne ci nguuru Macky daana dajul suuf Macky Sall ci ñaari ci ci fukki at lépp li nga xamante ji amoon na ko ci yéene Sénégal amaana mënut a def lépp amaana mënut a mottali lépp président moom Mbaye Diao yàgg nekk ki nga xam ne dafa jege woon président de la république yàgg ànd ak moom dans les missions def ànd ak le candidat Boun Abdallah Dionne te de liste nationale def le def le tour du Sénégal ñëw en 2019 teg directoire de campagne de trois personnes à la présidente Aminata Touré Souleymane Jules Diop bii di wax barki démb ak kii nag bi di wax ñuy wax le président El Hadj Mamadou pour dire que jaar-jaar boobu noonu daf ko may expérience jaar-jaar boobu noonu daf ko may mu wër Sénégal wër le territoire national te ku wër Sénégal wër territoire bi di nga fi yëf yi baaxee ak tey jii bu ñu jëlee réew mi lan lay war a jooyante Mame Boye Diao yàgg président la république am expérience boo xam ne am na ko tey président la république dem ba tekki tekki nombal tànkam ne man dematuma président Mame Boye Diao jël responsabilité sur sa personne ne man dinaa dem ci Sénégalais yi présenté leen programme présenté leen vision présenté leen gis-gis tey jii Sénégal li fi dafa bëri mun na ne tey jii barki démb rek ñuy wax problème immigration clandestine pour dire que bu dee politique de jeunesse échec dafa am bu fekkoon tey jii am na réussite duñ dem ba en 2023 xale yi di jël gaal gi buñ demee ba en 2023 jigéen ñi financement yi ñu doon jooy démb ak barki démb moom lañ ko ne di jooy président Mame Boye taxaw tey jii mu ne man de les femmes autonomisation des femmes am na lu ci Macky Sall def waaye man am na lu ma ci mën a indiwaat ba ci cadre boobu je pense si la tegee programme bay wax ne que dans le futur su ma jotee réew mi naa teg li ñuy wax la banque nationale des femmes pour autonomiser bu ñu àndal ñun ñu gëm ko nekk ay ndaw dafa nekk leader bu am vision am gis-gis am yéene ci Sénégal ci kaw yéene boobu nag ay ndaw dañ ko ciy jàppale ay jigéen dañ ko ciy jàppale ay mag ak ay xale te tey boo xoolee saal bi ñu la wër ñëpp ay ndaw ñoo fi nekk ñu koy sante yàlla siège bi ñu nekk tey bi ñu ko ubbee ba tey président Mame Boye Diao déclaré candidature am saa su nekk boo xëyee suba ba ngoon dañuy recevoir ay audience de 8 heures à 4 heures du matin ba ci parrainage yu ñu toll nii chaque jour ngeen gis ay dépôt de fii si biir siège bi parrainage yi kenn ku si ne si ñun boo xoolee ACT WhatsApp am da gis muy partager en direct le dépôt des parrainages pour dire que li ñuy liggéey nekk na loo xam ne askan bi yëpp ñu ngi koy seede te li ñuy liggéey tamit ñu ngi koy tax askan bi ak opinion sénégalaise bi di ci teg seen bët di delluwaat di wax ne li ma waxoon sànq rek histoire politique moom boo ko xoolee trahison moom moom histoire politique ñoo ànd waaye loolu terewul ñun ñu ànd ak Mame Boye Diao dëggu fas fi ñu toll nii muy wàllum parrainage bi nga xam ne moo waral coow li dañuy rappeler la jurisprudence Djibril Ngom ki fi jëleen ay parrainage ñu yóbbu ko palais présidentiel nit yàgg na fee ne ci parti liggéey ak ñoom ba si yàgg daal di roccee ko dem di jàppale keneen di ñëw ci kaaw ñi fi doon def point de presse tey dans la journée di wax ne dañoo bàyyi coalition Mamadou Diawo dem jàppale le candidat du parti pouvoir ñun ba ñuy liggéey président Mambo Diaw dafa jël doomu Fatick muy Massène Papa jox ko ne ko yaay sama mandataire national ba si léegi rek Daouda mii nga xam ne moom mu jiitu ci parole bi le coordonnateur des jeunes wan na leen clé bi nga xam ne tey jii moom la la DGE remettre candidat bu nekk ak sa clé bi boo jëlee tey jii parti au pouvoir te boo xoolee clé bi ko nga xam ne keneen ku dem bëgg jaay sa bopp wala bëgg wan nguur gi nag am na lu ma téye ci président Mame Boye Diao dañuy wax askan bi ne ñee doon wax tey téyewuñ dara loo xam ne tey ji mën na yàqal Mame Boye Diao lu toll ni bën mbiri puso parce que Mame Boye Diao am na carrière am na jaar-jaar ñi mu àndal dañu nekk ay acteur te ba ñuy jug di ànd ak moom xamoon ne ñan ñoo ñu jàkkaar lool ba ñuy jug di ànd ak Mame Boye Diao dañoo xamoon bu baax ñan la Mame Boye Diao di jàkkaar lool régime bi fi ne seen pratique ñëpp xam neen ko buñ la mënul jënd ci alal la koppar wala teraanga àdduna jaar tuumal la fii dañ fay am ay jurisprudence te tamit régime boobu may wax ni tey jii nii bu xooloon seen digganteeg Ousmane Sonko ci kaawu Adji Sarr xool seen digganteeg Djibril Ngom mi sàccoon parrainage dem déposé ko am na pratique yoo xam ne régime bi tey dafa waroon rompre ak moom. et c' est ñu dem ba en 2023 Macky nga xam ne moo ñu doon jiite dem ba dellu ginnaaw parce que xam na ne lu bëri askan bi nangootu luñ ko ñu ko génn tey bu ñu ñëwee ñu ne coalition Diao 2024 c'est une coalition qui a seulement 3 mois d'existence 3 ou 4 mois d'existence nga coalition boo xam ne dafa am 10 ans au pouvoir di trembler devant la coalition Diao 2024 parce que dëgg neexu na loolu moo am coalition Benno Bokk Yaakaar dafa nekk di trembler devant la coalition Diao 2024 bu ñu demee ba ay nit yu bokk ci Mamboy ñu di leen di leen jéem a récupérer ñenn ñu leen jox ay teranga pour xëcc leen boole leen ci kon xanaa li nekk ci parti au pouvoir dafa bëreetul wala parti au pouvoir moom la mu yor ci ay moyens ressources humaines daf koo doyatul bu ñu liggéeyoon nag jaar fi ñu war a jaar jox li ñu war a jox askan bi jàppale ndaw ñi jàppale jigéen ñi je pense que duñ toll situation bi ñu toll nii di rappelé ne Mame Boye Diao ba muy nekk candidat woowu ci ma Samba woowu ci ma ne la ma kaay jàppale ma waxatuma la nag ku bokk APR ñu ni di wax APR leen bokkoon Mame Boye Diao ba muy déclaré candidature amul kenn si ñun koo xam ne dalaa woo téléphone ne la nga jàppale ma dafa demee loyauté ak ngorom engagement am man mii di wax ba mu ko njëkkee ne ko président da dem candidat te boole woo ma ci mu ne ma Omar man képp koo xam ne da nga nekk biir APR sama loyauté ak sama engagement mayu may dem naan damay rocci ay nitu APR sénégalais yi 18 millions leen te 18 millions yi lu ma 200 000 waa te bëri na sénégalais yoo xam ne tey dañoo won nguuru APR ginnaaw pourquoi pas Mame Boye Diao dem xool ñoom leen métti ànd ak ñoom construire benn projet sénégalais bu nouveau te je pense yooyu la toll ki ñuy wax tey ji Adama Abis nekkoon suñu délégué régional bu mu jàpp ne dañ koy jiitaloon rek de dañ koy jiitaloon parce que peut-être que mag la dañ koy jiitaloon parce que démb mu ngi APR amu fa valeur amu fa place yàgg faa boo demee YouTube wax bu amul seede neexul dama nga tapé turu Adama Abis Adama Hadis Fall dafa miin démission Adama Hadis bu jógee tey mu ne man Diao 2024 damaa démissionné dañ naan ko def nga loo miin ndaxte boo demee YouTube tapé Adama Hadis balaa ngay yeggale ñu bind moo démission wala moo trahison donc kooku bu jógee tey mun daf ñoo bàyyi dafa mel ni dara xewul dara xewul parce que bañ koy jiital Dakar magam âge du ci popularité du ci légitimité à la base parce que kenn mës a coalition bi ñu bokk moom jiital ko muy jëlee région jiitaloon ko parce que may rappelé depuis le 26 octobre coalition bi jël na dogal notification baa ngi nii yónnee ko DGE mais Adama Adis Fall ñun teggi nañ ko suñu délégué régional. depuis le octobre ba tey acte bu mu yëkkati teg ko da koo def ci turu boppam xëy na nag boo waree dem jaay sa bopp feneen boo waree dem seeti ji waa nguur gi nga xam ne tey jii téyetuñ dara parce que damay faral di wax benn actuellement ils sont en quête di bëgg ay nit di wër ay nit tey jii lii moo leen jaaxal ndaw ñu topp Mame Boye li leen jaaxal mooy chaque jour ñuy toog di xool suñuy statut suñuy suñuy suñuy déclaration di gis nit ñi di affluer vers la candidature de Mame Boye Diao ay jeunes ay femmes Mame Boye Diao bu dul woon bu dul woon candidature bi am na benn njëriñ wala candidature bi am na ku mu tiital kon je pense bu ñëw suñu biir di jëm a rocc ma sàmba wala ma demba bëri na kenn demul ci biir waa kër Déthié wala waa kër Massamba wala Mademba dem di fa jéem a rocce ay nit waaye nag c'est normal qu'on s'attaque à Mame parce que comme ni ko Daouda waxee c'est la candidature qui dérange c'est la candidature bi nga xam ne jeunesse dañ ko porté c'est la candidature bi nga xam ne que dañ ko porté te du dara nag joxul kenn dara digul kenn dara parce que on est dans l'opposition te loolu on l'assume lu mu jaral waaye rek tey jii nii ñun Mame Boye Diao ñun jeunesse bi ndaw ñi ñoo ko porté suñu bopp te a yóbbu incha yàlla def na ne note ba leen nommé secrétaire général sax mosut a génn bañ koy publier peut nag tey jii pour ñu dem jaay seen bopp moo la jox valeur boobu noonu Adama Adis da nekkoon APR APR respecté la nga démissionné cinq fois Bour News miy toog fii nii muy journaliste du ma bàyyi ma wax lu dul dëgg ba Adama Adis Fall di ko woo këram di jooy naan APR respecté wuñ ma nekk ci cinquième démission am xanaa bii bu mu démissionné Diao 2024 mooy sixième Adama Adis Fall moom waxu démission moom boo tapee YouTube li may wax rek da gis Adama Adis Fall gis démission gis trahison kon kooku waxam féete na boor keneen ku taxaw nga naan doomu Kolda nga Mame Boye Diao nekk doomu Kolda et c'est la première fois doomu Kolda nekk candidat à présidentielle donc je pense ku di Koldois war ngaa mën a xalaat ne suñu doom ji tey ji bu laajtee réew mi ñu joxoon ko mairie Kolda dañ ko war a jàppale mu dem jëli Sénégal bu dee nag loolu noonu nga dëkk doomu Kolda Mame Boye yëkkati la teg la mu la war a teg ngay syndiqué nekk dans mouvement étudiant tekki woo dara Koldoa yaa ngi nii toog ñi ciy jàppale Mame Boye nekk ay góor ak jigéen nekk ay homme de base te ñu ngi leen jox rendez-vous keroog bu Mame Boye Diao xëyee ne day dem defi tourné Kolda boobaa neen xam ne kan mooy borom Kolda parce que loolu sax wax bu yàqu la ku dem élection locale Mame Boye Diao dóor la 4000 voix différence nga jël troisième yow boo jugee nga ne yow yaay récupéré Kolda pour jox ko parti au pouvoir je pense que doomu Kolda bu toog jamono ji yow nga xool nga ne kii di Mame Boye Diao nekk doomu Kolda nekk première personnalité politique de Kolda de Kolda bu war a dem élection présidentielle nga ne yow sañ nga ko woon ginnaaw man mi nekk fu ñuul kii dëkk Dakar keneen ki dëkk Kër Massar dañ naan la yow boo demee ñun ñu toog ndaxte Mame Boye Diao heureusement que nekkul pour demul pour nekk président Kolda mais dafa dem dem pour nekk le président de la République du Sénégal te Sénégal 14 régions la 46 départements la te ñooñu sant yàlla depuis bi candidature bi lancé woo ba tey de tous les départements du Sénégal chaque jour nit ñaa ngi ñëw di jubal ci Mame Boye ñii di ko te benn boo yóbbu ci ñun fukk mu ngi toog ba tey ba sànq tey boo jëloon lépp lu ñu yor liggéey ko ba fi ñu toll nii ci parrainage nga da nga koo sàcc yóbbu ko mun na laa topp ci yoon de waaye suñu nekkee ñu koy yeggal suñu liggéey xam ne li ñu des ci ay fan bëri na te sénégalais ñoom ñoo jugal seen bopp fii Massamba joxuñ ko dara joxuñu ma demba dara sénégalais yooyu jugal seen bopp gis na Mame Boye Diao offre politique jeune la gis ne war leen mën a am ci moom yaakaar tey boo jógee nga la ngay xeex Mame Boye Diao régime bi Mame Boye Diao du seen adversaire Mame Boye Diao le régime son adversaire c'est cette immigration clandestine son adversaire c'est ce problème là que les femmes à être financées ñu jël financement yi politiser ko bu élection jotee ñu dugg ci localité yëpp laajte ay autorité naan jox ma liste jox ma quota alors que tey jii financement yi bu ñu ko yëggale woon ci askan bi parce que sénégalais yi on est li tax ba tey di askan bi wan leen ginnaaw benn boo ko yaakaar bu demee élection locale yeewu askan bi nekk de l'opposition battre ko mu dem élection législative 82 députés sur 80 confisqué vote Aminata Touré pour mun a mun a jàll teg sa président assemblée di négocier ak Pape négocier moom jox ko député jox ko nangam nangam pour mun a teg ci sa bureau assemblée loolu gàcce la ci régime bu def 8 ans def 9 ans peut-être boo demee ba amatoo fenn foo langaamu da ngay nekk coalition bu am 10 ans d' existence dem di songante wala di jéem a xëccoo coalition boo xam ne 3 mois kese la am d' existence mois d' existence nga nguur gi mooy li may faral di wax Benno Bokk Yaakaar c'est un géant au pied d'argile ils ont perdu le pouvoir et ils doivent s'en rendre compte parce que leur opposition ce n'est pas Mamboy Diao leur opposition c'est l'immigration clandestine leur opposition c'est la cherté des prix leur opposition c'est les difficultés que les Sénégalais vivent au jour le jour seen combat nañ ko orienté vers foofu te bàyyi Mamboy Diao mu doxal parce que Mamboy Diao mënuñ ci moom lu tal ni bën bëri puso ay ndaw ay Sénégalais leen ñoo moom suñu bopp ñun ñoo tànn Mamboy Diao ñun ñoo ne dañuy yóbbu Mamboy Diao xam ne bëgg naa si kooku ñuy wax Adama Adis Fall ba mu demee rencontré Amadou Ba dafa ñëwaat ci suñu biir maanaam daanaka moom agent double la woon da doon xëy yendoo ñun bu guddee mu dem reer ak Amadou Ba mhm. moom moo nañu woon moom Adama Adis Fall ni ñu pouvoir bi ñu ngi leen di waajal benn plan pour liquider Mamboy mhm. mënuñoo liquider Mamboy si nee nudul tey jii dugg ci biiram xool ay nit yoo xam ne tey jii am nañ position si wetam ñu jéem leen a rocci ñenn ñi bu ñu ñu ne Mame Boye kenn mënu ko tere bu jàllee ci état bu parrainage bi sénégalais yi mën nañu koo jiital léegi ñoom amuñ benn alternative bu dul tey jii nii xool biir Mame Boye lan la fa mun a liggéey ak lan ñen nit dañ fa mën a rocci loolu nag c'est une tentative boo xam ne dañuy préparer à l'opinion ñoom waa benn bokk yaakaar ils veulent bloquer Mame Boye Diao si parrainage yi ils veulent même bu Mame Boye amoon c'est-à-dire 500000 parrains yu valable ñu bloqué ko ne dafa am ay doublons moo tax tey jii ñuy jël ay nit ñoo nekkoon suñu biir ñoroon suñu parrainage ñu dem na dañ leen jéem parce que ils veulent préparer l'opinion di woo Sénégalais yëpp ne nag fii ku fi jóg ñu faagaagal la ku fi jóg ñu jëm laa nasaxal ku fi jóg ñu jëm laa delloo ginnaaw wala ñu jëm laa def naka sudul noonu bu dee bu Mame Boye nag moom na leen jàpp leen jàpp ne ñoom ils vont échouer ils vont échouer ils vont échouer lamentablement parce que Mame Boye Diao c'est une par les jeunes par les femmes te incha allahu rabbi dañ koy yeggale fi ñu jëm mooy à l'élection présidentielle de